ahousubillah min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina moolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci koor gi rawatina ci fukki fan yu mujj yi mu nekkee nag ci koor rawatina ci fukki fan yu mujj yi xel dana dem ci luñ tuddee asakay muuram koor ñu koy wax sadaqatul fitri léeg-léeg ñu koy wax zakatul fitri di lu am solo loo xamante ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko sunnaal waral ko ci jullit yi waaye julit ba mu ko waral ci moom nag mooy bu ko man te da koo jox yitte ju rëy nag ndax la tax mu ne sawmu ramadan muallaqun bayna alsamai wal ardi laa yurfau illa bi sadaqatil fitri loola dafay tele na kon lu mat a def la te mët a bàyyi rawatina ci ku ko man ndax dafa wax ne woor weeru koor nit ki mën na ko woor ba noppi nag waaye sunu borom daf koy aj ci diggante asamaan ak suuf te mu ne bu ko ajee moom borom bi tabaraka wa taala ci diggante asamaan ak suuf la ko fa mën a jëlee te jëlee ga lañ ci jublu mooy lay tax sunu borom nangu ko mu yéeg mooy kooka dafay natt asakay muurab koor loola nag kon aajo woon ñu xam mooy lan mooy lan itam kañu koy wax mooy kooka sunnaaloon rek mooy yonent bi aleyhi salaatu mi ngi tolloog li ñu tuddee saa nag moom la wala fi daa àndaar àndaar nag mooy e, ñeenti e, barkel nit koo xam ne ay loxom rëyut tuutiwut bu ci nattee ñeent natt benn nattaat benn nattaat benn ba muy ñeent loolu lañ de saa muy àndaar àndaar jooju nag ñi nga xamante ni ñooy kër asaka ñoom biñ ko xaymaa dañoo wax ne mi ngi tolloo ndax borom xam-xam yàgg nañ cee wute waaye ñoom li ñu gis nga xamante ni moom lañ joxe muy ab gàggante ren mooy mi ngi tolloo ñaari kilo ak genn wàll libre ñaari kilo ak genn wàll libre mi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunnaale itam ci jullit bu ko man bu nekk dafa wax ne bu ko dee génnee da koy génneel boppam moom ki ko man ba noppi génneel ko képp koo xamante ni ab dundam da ko war ku sab dund war ci moom nag mooy ka ca jiitu mooy sa soxna ak sa doom ñooñu ñoo ca jiitu bu ñoo ñooñu weesoo nag mënees na koo génneel way jur muy yaay ak baay ñu ko mënut Euh, ak képp koo xamante ni tam dafa nekk ab surga nekk ci sa kër te yaa koy dundal waaye doom ak soxnaam joo xam ne mën nañ ko nag dañuy demal seen bopp waaye ña nga xamante nag yaa leen yilif nga nekk ñu nekk sakron nga leen di dundal ñooña ko ci nekk war nga koo génneel bopp bu nekk war nga ko génneel deux kilo ak genn wàll liibar ci ceeb ñoom sax dañoo yegg ci ne ceeb bi ñu war a génne ndax de yonent bi dane woon min min xaalibi quuti ahlil balad dañ koy génne ci li ëpp ci li waa dëkk ba nga nekk la ñuy dundeel lañ gën di lañ gën di dundee ca lañ koy génne kër asaka yi nag ñoom gis nañ ne ceeb la te bu dee ceeb bi tam ne qualité bi ñuy wax ceebu bongo lañ wax ne maam ci lañ koy génne mooy bopp bu nekk da nga koy génneel ñaari kilo ak genn wàll liibar boo ko defee boo ko génnee njaboot googu yëpp nag nga génne ko joxe ko ña ko yeyoo ña ko yeyoo tam mooy ña yeyoo asaka rek foqaraa yeeg masaakin yi ñoo ko yeyoo ak képp koo xamante ni gis nga ne yitte woo na ko te du ko def ci lu naqar yàlla ndax ab sarax sax sëñ Tuubaa nee na boo ko def da nga koy seet ku ragal yàlla nga jox ko wajtanibu i'taaha li kulli man lam yakun daa taqwan min al xalqi zaman kon boo gisee ko ko aajowoo te ragal yàlla nekk nit ku baax ku yiwee mën nga ko jox su la neexee nga fob asaka jépp joxandoo ko ko su la neexee itam nga séddale ko jox kii dara jox ki dara jox kii dara ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lam ci jublu woon rek dane woon ughnuhum an su'aali fi dalika al yawm na ngeen fexe ba ba ba faqiir yeeg ñu ñàkk ñi ñada daa aajawoo ci lu dul bisu it ñu am lu leen doy loo xam ne dañ ca dundee walis ñuy dem di tàllal kenn loxo kon nag loolu la ca gën mooy nga jox leen loo xamante ni eh, dana dana leen mënal dara looloo tax itam ñoom ñu gisaat na itam ginnaaw dafa xam li ëpp ci dund ak waa dëkk bi ci lañ koy génne waras na ko mën a wecc def weccat xaalis loola itam ñu nattaat ko kon daal ne mi ngi war a tolloog téeméeri dërëm ak juróom-ñett fukk muy neuf cent franc neuf cent franc da koy génneel bopp bu ne génneel sa bopp neuf cent franc génneel sa doom neuf cent franc bu dee ay doom nga génneel ko ci nekk bu dee ay soxna ku nekk génneel ko bu dee ay surga ku nekk nga génneel ko boo ko booleel lépp nag yow boo ko xasee génne wàcc na la rek jox ko ña ko yayoo ñoo ca des li tax tam ñu ne nañ ko def weccat mooy ki nga jox ceeb ceeb la rek moom ceeb yi bare bari mën naa daje fa moom bu ko defee mu aajowoo ak ndawal wala mu aajowoo am ndugg nu muy def te amul xaalis day dem jaayaat ceeb ba di ko jënd ñu ne kon nag boo ko joxee xaalis nag neuf cent neuf yi bu ca barilee dana mën a jënd ceeb jënd yàpp jënd am dugg bu ko defee xekk ma ba taxoon yonent bi bëggoon ñu bañ a sonn ak am leen doy ci bis bi foofu lay gën a feeña kon gis naa ne loolu ñu ci wax wax dëgg yàlla euh, gisiin wu rafet la ci bu mën a nekk xaalis mu nekk xaalis te itam nag kon waaye jaamu yàlla goo mën di def nag na nga ci jiital yéene ju sell mooy na ko def ngir jëm yàlla ndax jaamu yàlla goo mën di gis itam ñaari sart la ngir borom bi nangu ko su ko neexee mooy na ko defee nañ la ko digale woon tam dëppoo ak sunna su yonent bi alayhi salaatu wasalaam te nga def ko ngir jëm yàlla loolu moom ci jaamu yàlla yëpp lay feeñ ni feeñe kon ci asakay muram koor waxtu woon lañ ko génne mooy bis bu ñu demee ba bis bi nga yaakaar ne ndax euh, kenn mun a jekk-jekk ne fi mu ne nii ne bis sàngam mooy mujj ci weeru koor ndax weeru feeñagul waaye bis boo xamante ni dem na ba weeru feeñ bis bu mujj boo ba weeru feeñ bu jant bi sooyee man ngaa tàmbalee génne asaka yooyu di seet ña ko yooyu nga jox leen ko ba keroog muy xam xëy na bisu korite ba ba ba ca toppaat waaye mën nga koo jiital itam ñaari fan njëkk ñuy wari ngir rawatina euh, gën a dalal xel xel yi ña ña ko jëmee ba mu wóor ne maanaam assuré nañ lu jëm ci seen bisab korita loolu itam xel mu dal moom itam ndax ñu ñuy joxe asaka ñëpp nag bëgg ñu am xel mu dal mën a bokk ci société bi ba kenn du leen boddi am seen teraangay bopp ba ëllëg buñ neen dee joxe asaka ba nga xam ne dañ mujj woomal sax wëlbati ko joxe waat asaka ndax itam sariya itam bëggul sax nag nit koo xam dafa dëkk ci nanguy asaka rek du benn effort moo tax asaka ñu war koo gën a organiser waat ba nga xamante ni eh, dañ ci mën a gën a so génne somme yu baax yoo xam ne kuñ ko jox boo demee ba at yow da ngay joxewaat asaka waaye kenn du la joxaat asaka kon ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala mu defal ñu jàmm ak salaam ak eh, tënku ci liggéey yi ak moytandiku tey te musal ñu seytaan te nangul ñu mboolem jaamu yàlla yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu